sans plus tarder ñu jox parole bi Ibrahima Ba ba ngeen may xolox bu baax moom it ñu benn grand bu baax la wax dëgg fa yàlla asalaamaaleykum waa mbokki Ndofane maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam euh, dama fi teew en tant que xaritu Umar

ay jeunes yoo xamante ni dañoo xam li ñu bëgg ay jeunes yoo xamante ni dañoo fonk seen bopp ay jeunes yoo xamante ni dañoo propre donc ci seen bopp ay jeunes yoo xamante ni ku ñu gis du ñu yaakaar ne ñoom ñoo la tane kon nag bu ñu xoolee tey Ndofane et érigé en commune depuis 1996 jusqu'à nos jours tey mu nekk 23 ans tey bu ci xale juddu woon am na si jabar ba am ci doom tey am na ay doo ay ay jigéen yoo xamante ni sëy nañ ci donc ba am ci ay doom ba tey Ndofane fu mu taxawoon fa la taxaw boo waxee Ndofane nag dinga wax le village polarisé man Ibrahima baax sama xeex yépp mooy le village polarisé donc mun a jëm kanam mooy le village polarisé ñu mun a am courant ñu mun a am ndox ñu mun a am lépp loo nga xamante ni lu war la tey bu xoolee Ndofane tey bu taw bi ñëwee doo mun a am foo jaar parce que Ndofane amul assainissement bu baax tey jii boo demee tey ci hôpital bi amul dara loo xamante ni am na fa ñi fa nekk amuñ dara loo xamante ni ñu si gën a bëri si ñoom amuñ dara loo xamante ni mun nañ ko kon tey liy war a fi mooy jeune bi yëpp tey ñu jog taxaw changé loolu ki fi nekk maire bi nga xam moo nekk maire Ndofane xamnañ ni dafa xamnañ ni ndofan tax ko li ko tax a intérêt les autres candidats nañu xam ne fi fii képp ku koy jël jaar di nga jaar ci le village polarisé mooy Kër Daam Pon Malo, Maalo Maalo Kër et Kër Sëñ Bakary bu lii passé incha allah bu donc dinañ parce que lu sama teewaay fii tey mooy que vraiment sama ay doomu ndey ñoo fi ñëw ñoo fi teew moo tax ma teew fi en tant que responsable politique maa ngi ñaan ngir yàlla yéen jeunesse bi na ngeen gëm seen bopp ki fi nekk jox ngeen ko joxaat ko dafa tële keneen tam ku fi ñëw pour taxaw di doxal intérêt nañu jóg ñu xeex loolu fii li fi nekk mooy intérêt général Et pourtant Inch'Allah, vous bu neexee Zenas Zenas de Et aussi mu donc Inch'Allah, vous bu neexee yàlla Nous ca kanam le village progresse kanam merci beaucoup. Ibrahim Ba Content nañ ci yow. asalaamualeykum. rahmatullahi taala wa barakatu on calminama bandirabe onon fof Indemon et e jettoje moon maguilen tour ak centre di leen euh, yëgal suñ mbégte seen teewaay fii euh, mënatuma fi wax sax loo xam ne daa bees ndax li li nga xam ne waroon nañ ko wax yépp wax nañ ko waaye dinaa leen ñamal tuuti ci Ndoofaan Ndoofaan am na combine Boré de ngeen xam ko combine Boré am na fii ci Ndoofaan ci diggante kandidaay na ngeen ko xàmmee nag bu ma ko waxee rek war ngeen xam kan kan la gis ngeen monsieur le maire ngi nga xam ne moo moo moo dese tuut ñu dindi ko dafa am ku mooy combine bëre fii ngeen xam loolu gannaaw loolu ñun dañoo am programme te programme am na solo lool ci bugg liggéey ci dëkk bi ñun dañoo am programme de te programme boo xam ne nii jeunesse yéen a ko moom ndax insha allahu rabbi su fekkee ne fal nañ Omar Diallo am na partenaire yoo xam ne at mu ne dinañu yóbbul euh, lim boo xam ne lim bu takku mu yóbbu leen ñu liggéey fu ñu war a amee fu ñooy tekkee te loolu am na ci solo beneen wàll bi euh, Godorong maître Godorong rek kenn kenn kenn kenn ma ñun ñëpp buñ dajee mënuñ koo liggéey ci biir dëkk bi waaye am nañ ñu ko man te ñooñu tàllal nañu suñ loxo eh, liggéey ak ñoom su fekkee ne yàlla def na kii jël dëkk bi dinañ am goudron fépp koo xam ne nii eh, route bu mag la ci biir dëkk bi dinañ ko goudron ba ba mat te loolu am na ci solo eh, beneen wàll gi mooy ci affaire hôpital bii hôpital xam ngeen ni ay partenaires ñoo ko mën a liggéey mu kii mu mu mu mu am euh, résultat ndax euh, monsieur le maire Samba bi may jóge fii am na lim ci defoon tuut yàlla def ñu dindi ko kon kii su fekkee ne moom it dem na wut ay partenaires yu baax kon war nañ koo jàppale ba partenaires yooyu yëpp mën a ñëw ci liggéey dëkk bi liggéey ko kon na ngeen xam ne kii dafa am programme bu baax programme boo xam ne bu ñëwee du intérêt kiram du intérêt euh, njobootam kese intérêt ñëpp lay dox kon loolu nañ ko xam gannaaw loolu nag euh, li ma waroon a wax ñëpp euh, nit ñi wax nañ ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne lii na ngeen jàpp ba mu dëgër man lu ay ay lu ma téeméeri borom kër ñëw nañ ci man ñu ne man naa leen woon Omar jàll ndax dégg nañ programme am bugg nañ koo jàppale incha allahu rabbi te danañ diseen moom te li ci kanam rawul boot ñu ngi leen di ñaan ngeen jàpp mu dëgër merci. merci Ndiaye Gallo kàddu ji rafet na leer na wax dëgg feele tet na lool jaar na yoon yéen ñu bëri ndaxte li nga wax yëpp danga ko résumé que Omar lenn rek moo ko yëkkati mooy intérêt commun. intérêt boo xam ne c'est général ñëpp a ciy jot moom bu amee ñëpp ay am loolu nag teg na ko ci leer ndaxte Omar am na ay partenaires à l'extérieur même mais ñu war a moytu leen rek kàddu joo xam ne denk nañu ko mooy ne Ndofane daa am combine bëri combine bare nag mooy mën nga gis kii di campagne fii kii di campagne fii mais au finish ñoom ñoo bokk fu ñu jëm loolu moom lu am solo la merci ma leen di ñaan ngeen may ko loxo légui nak, dañuy jalu ci suñu ben grand frère ñu grand frère moo jallu ya yaakaar naa ku wax moo rek na Omar ñoo fi nekkon balaay Omar di dem ñoo fi tok ni tay kon lepp lo xam ne war nañ ko mënon na wax ci Omar rek mënon nañ jox moo di wax ko wax dëgg fa yalla en plus mu doon ko woyof lool mu doon ko xam quartier bi rek moko yëkëti ndaxte bi fi defee association moom lañ fal président bureau bi yëpp tasoon na bureau bi yëpp demoon na ba tas mais gaa yëpp a daje ne bopp président bi moom moom kese moo fay des te alhamdulilah pour la première fois ñun Kaapay ñu am benn président boo xam ne daf ñu gunge bi ñu gës jënd ay 16 loolu amul woon fii daan donc teg merci dañ doon teg ba ci yàgg xaalis bi am feneen fu mu jaar comme moom xoolute boobu nekkee si moom ba gars yi confier ko mu garde ko sàmm ko yaatal ko xam ne ñii samay raq lañ mu teg ko ci yoon ba tey ñun ñu mën a am seet ji ko luye non kooku buñ ne ko jaajëf sax loolu dafa gàpp